jéegi am na coow di ñàkk dégg gu am si diggante ñaari opposant waa parti démocratique sénégalais nee na duñu nangu bokk ci coalition boo xam ne nii Aminata Touré mu nga sa biir ki nga xam ne nii yàggul dara moo fi nekkoon kenn ci jëmm yi gën a am doole ci nguuru njiitu réew mi Macky Sall sa boor ba moom kii fi nekkoon élimaanu jëwriñ di Aminata Touré moom jàpp na ni waayu libéraux yi ci biir opposition bu réewu Sénégal ay naxe mbaay la. si gis-gisu nag kii di ma Mamadou Sy Albert daa am ay mbir yu fi jot a jaar moo tax rek libéraux yi mënuñu nangu kii di Aminata Touré. pour ñoom Aminata Touré moo xeex Karim yóbbu ko prison ba continuer di ko xeex. Euh, Aminata Touré aussi bokk na ci benn bokk yaakaar am na ñi nga xam ne xeex nañu PDS depuis 2012 ba tey ji donc kooku dañ ko ràññee comme adversaire politique la loolu moo tax PDS bëggul Aminata Touré ñëw ci mouvance opposition bi mu nekk. analyste politique bi gis na it ni doxalinu parti démocratique sénégale dafa xaw a jaxasoo ci boppam ndax lañuy ñuy xaarandi si ñoom ci du ñeel mbirum opposant ñu ko ba tey. ñu xoolee PDS dafa voté euh, ci bureau assemblée pour ñu dàq Aminata Touré jàppale nañu benn donc loolu parti opposition ñu nekkoon ci bureau yëpp dañu contre. boo xoolee aussi taxawaay PDS ci motion de censure bu yeewu askan wi te PDS dafa euh, jël position neutralité bu xoolee doxalin PDS en tant que parti d'opposition aussi gisuñu euh, yeewi la ñu gën a gis que PDS donc loolu yëpp lu muy firnde mooy que PDS taxawaayam en tan que parti d'opposition wuute na loolu ak ñeneen ñi. Mamadou Sy Albert gëm na ni Aminata Touré menace la si waa PDS libéraux yi jamono gi dañuy rek jéem damay laa fam waaye boo may tuyee fii dina këpp ci seen kaw bu dee ni yeneen parti yi nekk ci kujje gi nangu nañu ci seen biir ki di a ture